Ramadan, Ramadan, Ramadan sama ganda faidun Ramadan, Ramadan, Ramadan sama ganda faidun nañu quraan ba ñu dëddu caaxaan géjël suñ bànneexu ba kenn fay ñu kaataan ramadan yow mbër mi kenn dul daan booy bi faa ma jàpp yow xam naa booy bi ak pari foot bi naar bi muy yooru koor tamit gaañ yow du bàyyi ñu waay yow ba ñu loolu de ba ñu loolu mooy loolu de soo xale bi nu mel yow xale bu baax na mais tamit dañuy bàyyi après koor gi sax si sa koy noonu ñaar ñu bëggante wax ca lu baax. mooy lu gën xaw ma waaye eh? wax ca lu baax mooy lu gën. Ah, kon décidé nga dina ñëw. waaw baax na bien sûr. sama ko may fi nekk moom amul problème mu ko tegalee rek. ñaar ah, mën ngaa départ waaw. naa sotee. booy. xam naa dama ko fooyee ko uh-huh. ndax doo mën naa dafay laaj numéro wala dara. waaw. allo waaw. baax na waaw. boo ñëwee rek si suuf nga bifal d' accord. benn booy. laa dayante bu neex boo xam ne. Uh-huh. maa doon yedd nag bien vrai naa la koor gi mais kii xam nga xam nga ma tapel maa bëgg nga ma néeg rek day ñëw dañuy waxtaan mooy loolu. yaa si yaa si mën a jàpp. il faut war a jëlee kenn. يعني نام قلي من اللي في غرامي نيكولون اللي في غرامي نيكول يا مو جنا خم بوي سمعت جي مودو مو بوي يو يا بان يو بان قلي يو موري اني في لابو خم يوتي قال بيو خلي بو نيخ بلا خلي بو نيخ يو جاب سرق ماي ال خم ما سغلا لا دم كي لا ميف لا كي بيدك يو خم فما لك يو نك دول في فو بيزنس تلفون مان كن فما جيزه دا دول في بيرك بو جاكله با بو ديفون نان سا بولا ما دي كان ري مو دل نو نون لا دينا نك amul xaar bu ma gisee signam léegi mooy loolu daal booy yoon fi nga war a jëlee ngir jaaxal na ma loolu ci koñ bi fii de mu muy bibé sax mais xam na gàlle bi gis nga xoolal mu muy bibé mais léegi yow moom xam na fii xam na fii xam na fi nee naa ko bu yéegee rek sama copain mooy foofu te xam na fi moom yow bu ñëwee rek ne ko maa ngi si biir mooy moo loolu moo ko moom xam na fi de ah ya? Ramadan Ramadan Ramadan waaw maa. xamal naa ne sama picc bi dina ñëwaat. da ngaa gàttandu lépp bi xamal naa ne di nga ñëwaat. dem ñëw ci loolu ne. waaye nga am jàmm. Ah, ci sos. déggu ma. fa xamee alu. fa nga xamee alu yow. loolu day mënta neex xanaa da ngay mbalak waaye da ngay dugg waaye toogal waaye. boy mau foto fantoo quoi vous faites alu nga ngomong. nga wax ma. alu laay seet yow far ngaa xamee alu. xamoo fan laa alu. non non. <laughs> alu bu génnee nga laaj ko ko man ak alu dañuy dund lu ani alu. alu dulu. am ili maa ini alu ini nga kupon. alu ini nga ko Kamu xaw ma ini mau mais mau. mën a ini mën a ini mais waaw. lu xew mau ngi nga lan la. alu yow oke kalah quoi ki mu dina mel do ma téléphone ay fen way ay fen allo ki ki moy ko ni na allo sama ex sama gel won non allo li mu mal dess bu frère mo xol won mal dess ana lo bëgg dugg ci sa loxo on oh, dina ki son frère frère lui frère gis nga kay kay rek man tay mom fi taxaw nan da ngay doxat yow mi nga sa bi yaa ngi dégg sa bakkan mu ndaw bi mel ni nu mu la mënta wax yamal laa la wax. gàttaay bu la yàgg a jooyloo bakkan boo yàgg mucc. xalaat xam lu ma bëgg est-ce que xam lu ma bëgg xam lu ma bëgg yow romb ma nii. Talla fii nii man Talla daal laa sàmm. romb na yomb Talla. bu ma jaaxal fii ci réew. fekkee nañ lépp histoire début à la fin. yow bul wax yow yow laay fay ni gën fan waxoon naa la ko waxoon naa la maa lay gën ba tey. mu yàq trop benn ñaar ñett. eh Bellingham eh wuy ma rek leen de rouge bi ngay eh. melni kankura ma waxat bilingam na doon fajj katu rab ya watu bilingam di ma tay te wuy ma ñun fekkee na histoire bi yu ki ta quoi ki yaa ko yaa ko yaa fekk meer amé nga dem doxar ko mu wëlbati ko genn ak sa miiraat yi la roxi bi roxaani la dafay xaajam ndoxan ko yaa ga yaa yaa ko ngay di waro ko def mom la rek sa ka nga trop mais am na ko bi ni ni rek dama fuda fu fuda ko fa fere caga dama ne ne

man lay wone yow nit nga quoi mais do nit ko xol sa bakkan wi xam do nit sa bakkan ngeen rom man ya man waay gi dama koy yobal ka dem maa ngi ma ni Guinée neen ne hino wala di baba kañ def bàyyi ko de gis nga di jëndee seen borom gis nga booy genre ñii nii ah ñoom ñooy fekk ada di leen jaxase gis nga kii gàttaayam bi xam nga muy tungu de boobu du mu lu si film mooy dem ko loolu nii am naa yoo mais pap am ndax yow kita tey mënoo doxal meilleur en yow tay lim la def ni da fek da nek man dem ma comprendre ndax liñu yag defal nga mo lu ne lo tax ma ki mais am na yo xam na ci baye xel quoi naay su tamit ngay collection ay jigen mais gis nga ko moma ah, ñaar xota tamit mel double feuy waron def li ramadan ramadan ramadan sama gian sao mang gầm từ phê